voilà donc mu nekkoon suñu musique euh, bés bi ñu àndoon ci ak euh, Mia donc euh, mu nekk nag acoustique boo xam ne rek genre Wele Sadio Diallo yi nee nañ des fois lundi dañuy soxla lu dal moo taxoon ma indi leen ko j'espère que neex na la Wele. en tout cas Fatou saa yoo. et puis tu me dois un batterie saa yoo yeewoo jagle ma nga moo tax léegi nag sama batterie par rapport ak vendredi bi passé yow tey ma woon fii en off. bon la benn. Milissa Diallo merci beaucoup donc looloo nekkoon euh, suñu musique bés bi euh, tey comme ni ma ko waxee tout à landi euh, et lundi dañuy gën a waxtaanee lu jëm ci wàllu sport et pour ça tey dañu dalal suñu invité di Raymond Edouard Carvalho nekk entraîneur au SIBAC ni mu tuddati Tidiane bon balaa loolu bàyyi mbaay la nga nuyu suñu reporter choc bi. suñu sportif maison fay Fatou di nuyu euh, sama ñaari naataangoo yu ma seqal plateau bi ak euh, coach Raymond. d'accord bàyyi la nga dalal suñu invité tey. waaw tey nag comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi daan dalal ki nga xamante ni moom mooy coach Raymond nekk euh, entraîneur Sibac évidemment la première question ba jàngat nga daal di am ci fenêtre fenêtre FIFA bi nga xamante ni Sénégal doon na ko joŋante ci Égypte te Sénégal bañ a qualifié ci li nga xamante ni moom mooy coupe du ba war a am. bon jàngat bi ma si am si euh, fenêtre bi mooy que euh, démarré wuñu bu baax parce que mën am ñu euh, trois matchs joué contre Soudan mu gagné ñi Tunis tamit gagné ñi ñu ñoo taxawat encore ak Cameroun donc xam nañu Sénégal Cameroun moom Sénégal moo mun Cameroun mais lu ñu af di xool ñu ñu mën ñu ñu Euh, ñoo xam ne ñoo ñuy capable di gagner chaque fois c'est Soudan du Sud Tunisie sooy dem compétition da ngay xool tamit instant bi ñan ngay taja ñan ngay tasal nga jéem leen euh, lecture xool lan la ñuy am parce que ñooñu duñu nangu ñu duñu nangu ñu gagner leen hmm. surtout Sénégal Soudan dañuy am benn euh, nok leen tur benn calendrier boo xam ne que depuis quatre ans soo xoolee ko dafa changé Soudanais yi comme ñi ñu doon basketé ñoom noonu la ñuy basketé dañuy gaaw mën a tëb waaw ba pare soo xoolee si seen jeu ñoom ñaari jeu yi la ñuy joué dañuy joué à l' intérieur à l' mais ñun benn ko foo rek la ñuy benn côté rek la ñuy joué soo xoolee que dañuy tenté trop si 3 points yi 3 points 3 points 3 points mais 3 points bi su doxul lan la ñu nar a def jéem a joué à l' à l' mais l'intérieur yi soo xoolee que instant yëpp ay huit gabarit la ñu donc gars yi dafa la ñuy arrangé jeu ku cinq contre cinq dafa métti ñun suñu façon de jeu contre attaque la contre attaque transition soo ko suñ ko suñ ko deful rek après suñu nekk jeu 55 day am des problèmes. effectivement seetlu nañu sax ci ci troisième quart-temps bi ah moment Sénégal daal na dominer li ñoom ñooy waa euh, lan la exactement la moo tax équipe Sénégal bi bu xasee ba mel ni score dootul mën a maintenir te boobu kab boobu. waaw parce que nit yi la jour yi dafa am jour yoo xam ne que que dañuy concentré wu. si cinq de départ yi cinq de départ yi suñ demee su amee commencé am changement rek commencé na am ay cassure ñeneen ñi jour yi ñu dul suivre peut-être wala parewuñu parewuñu ñu veut dire que euh, tournant da ngay xam sa doublure doublure yi mm. dañuy nekk par exemple kii 10 points lay dugal doublure am dafa mën a naa dugal 10 points mais su di euh, kenn génne changement soo mënul ànd apport bi di 10 euh, points yi mais na nga ànd minimum sa 50 pour cent mais soo àndul 50 pour da ngay chuter da ngay côté boobu day chuter parce que deux secteurs cinq secteurs la deux grands ak deux ailiers ak meneur jot na instant bi ñu commencé xalaat xale yi tamit aussi parce que depuis kañ ngi fi góor gi si mais est ce que ñi ngi xalaat kan moo koy remplacer ji APCOR mais moment bii la ñu commencé di xalaat xale yi pour ñu leen commencé remplacer loolu moo ñu daloon ñun bu ñu nekk Jeux Coupe d'Afrique 97 mais dubli boobu moo am mooy fossé ba léegi nii encore parce que préparé wu ñu woon a préparé wu ñu euh, relève bi mais soo préparé relève bi mais après da ngay tët da boo ma tâtonner da ngay ut fii ut fii balaa ngay am ba nga balaa ngay am chimique bi day xaw a compliqué te loolu moo ñu dal chaque fois dañu koy répété di ko répété waat di ko répété waat encore ñun ñu noppoon suñu doublure yi ñëpp ñu ngi woon euh, ñu ngi côté Maghreb bi. Mm. Dubaï ak ak euh, yooyu la. Mm, ban tontu ngay am si ñu bëri ñi nga xamante ne dañuy wax ni championnat bi amatul niveau bi mu amoon euh, auparavant. ok. tey par exemple man maa ngi yore Sibac maa ngi joué quatre journées huit licences laa am huit jours yu am licence. voilà loolu. ah mais parce que yeneen licences yi parewul. lu tax parewul. Ah, parce que defaruñuy licence yeneen licence yi. jafe-jafe yi ngeen di jàngoonte yi waa Sibac kese la wala yeneen équipe man sama équipe laa mën a. Euh, am na jour yoo xam ne que joué nañu à six jours si match. Hmm. ñenn ñi à sept. parce que am na loo xam ne parewul ah. donc jafe-jafe bi au niveau de la fédération la. Ah, ah am ah, am na en tout cas au niveau du ñuy defar licence yi. voilà kii jot naa def la transition sax ñu bëggoon rek ngay daal di wax ci li nga xamante moom mooy championnat bi. Mm-hmm. Euh, tey championnat bi ubbi na yàggul. Mm-hmm. mais par rapport ak daaw ban niveau nga gis moom la tàmbali championnat bi daal di daal di wane. ah en tout cas daaw moo gën a moo tane ko par rapport ak ren. parce que daaw maa ngi yore équipe année bi tamit maa ngi yore équipe mais bu daaw bi moo laa gis ne moo gënoon dañu gënoon pare. léegi euh, recrutement yi nga xamante ni joueur euh, basket yi nekk ci euh, SIBAC moom la am nan lay demee côté côté joueur. choix bi c'est-à-dire que par exemple man entraîneur damay xool yan secteur laa soxla muy meneur côté ailier ak côté grand. léegi par rapport loolu ma sama recrutement pour xool ñoom ñoo ñoom ñoo mën a adopté si équipe bi. d'accord amul aspect éducatif boo xam ne dañ koy jël en compte pour jël ñu war a ci équipe bi. si si si seen nag sport dafa xaw a doy waar dafa xaw a doy waar parce que dafa am naka lañ koy wax di projet boo xam ne que équipe bi moom lay moom lay tëral. Mm-hmm. léegi suñ la jëlee comme entraîneur da xool dañuy xool ne yow projet bi mën nga ko doxal wala mënoo ko doxal. ñoom bu ñu xoolee projet bi après si lañ ma ne ok euh, yow li ñu bëgg a équipe bi léegi yow sa gis-gis ni naka la ma ne leen lii ak li ak lii ak ñu xool ndax euh, ñaar yi mën a ànd. léegi ah. voilà dégg côté championnat toujours est-ce que communication bi nga xam ne moom moo ci war euh, am na ci. communication par rapport à ñi ñi xam ne championnat bi am na peut-être boo leen di jouer am ñoo xam ne dinañ ñëw assister yéen i partenaires yi et tout. kon tu mooy li ñuy wax sport da koy jaay suñu bëggee affaire yi dox dañ koy jaay parce que mu ñuy def championnat ñu bari xamuñu sax ne championnat am na ubbeeku na ñu ko xam mooy ñu ko jege. mais ñeneen ñi si ne sax xamuñu parce que ñu ngi instant bi yow yaa ngi yaa ngi comme journaliste est que xam na ni ñaata journée lañu nekk. pas tellement. <laughs> mais yéen la fédération bi la wala nit ñi ñoo euh, farataalul bâché euh, Sénégal wala en fait c'est c'est c'est quoi en fait. ok bon donc directement bu ñëpp xam lañ du basket basket dafa am problème fu mu toll nii sincèrement damay wax bu dëgg parce que ñoo doon mën. diriger si Afrique bi mais dirige tuñu dañuy nekk di daw si ginnaaw dafa am ñaari euh, quatre secteurs yoo xam ne que damay wax mënuñu bañ ànd entraîneur joueur joueur arbitre dirigeant tant que jiboo ñuy quatre yooyu jiboo ñu basket du dox waaw mais quand même jafe jafe-jafe bi nga xamante ni da ko seetlu ci ci ci fédération bi maanaam tey gis nañu joueurs yi dañuy bu ñuy faral di dem ci compétition internationale dañuy xaw am ay jafe-jafe ci wàllum euh, koppar ci wàllum yeneen donc da bëgg wax ni loolu moom moo daal di wu ci championnat bi ba ngeen daj yenn jafe-jafe yi aussi. tey par exemple moo wax la bon am na cadre boo xam ne côté FIBA bi la parce que suñ la wax ne ni que FIBA nii ne dañuy soxla jour bi jour bi compétition bi du jour bii lay commencé ba jour ba jour bi. léegi 10 jours la lañ lay jox jour bi da ngay bokk jour bu ngay jël vol pour rejoindre équipe bi ak sa jour ba ngay dellu si waat encore 10 jours léegi 10 jours lan nga si mën a def en tant que entraîneur. waaw mais c'est un travail à du si du si jours yi kese nga war a nga war nga war nga war a établir si équipe bi nga xamante ni moom ngay daal di daal di football loo mais c'est un processus boo xamante ni euh, ça prend du temps et sa dure donc tey. Euh, équipe bi gis nañ ci ay jours yoo xamante ne nii du si dix jours kese lañ commencé lañ commencé bokk terrain yàgg nañoo daje bokk nañ ko euh, li nga xamante moom moo nekkoon FIBA Afrique bi bi mujj donc majeur jours yi ñu ngi fa woon mais du dix jours yi kese nga xamante ne nii tey moom la ñu daal di dem Alexandrie daal di jongante perte moom moo waral tey échec bi nga xamante ni Sénégal daal di daal daal di daal koy am man je pense que <clears throat> en tant que journaliste sportif euh, jafe-jafe yi bokk na ci stabilité bi nga xamante ni nii ah, stabilité ba nga xamante ne nii fédération basket amatu ko tey mooy ci lu may faral di woowee bu ñuy dem yenn tournois yi majeurs yi dañuy am ay jafe-jafe yoo xamante ni pour ñu daal am ay vol gis nañ fi fait bi daal fi nga xamante ni moom mooy aéroport Turquie mm-hmm. ah gis nañ fi tey jafe-jafe koppar ngir sax assurer li nga xamante ni moom moo nekk prix mu joueur yi donc jafe-jafe yooyu noonu tant mu ngi bu fekkee dafa am jafe-jafe sportif jafe-jafe extra sportif aussi bu xasee ba am dafay xaw a gën a compliquer les choses mais man en tant que yow coach nga donc ci n'es pas directement ci li nga xamante ni moom mooy euh, staffu équipe nationale bu bu bu basket. Mm-hmm. mais tey bëgg naa xam ci yéen ci biir championnat bi Sénégal tey si Sibac ban taxawaay la daal di am ñoom aussi ngir ñu gën a suuxat li nga xamante moom mooy gën moom mooy championnat bi mais aussi ñu def de telle sorte que seen équipe bi nga xamante ni moom ngeen yor ñu ñu ñu bokk ci li nga xamante ni moom mooy le haut du tableau. programme boobu man moo tax ma ñëw. parce que Sibac dafa nekk équipe boo xam ne ko dañuy yàgg yore ay jours yu baax. mais léegi ñoom xam nañ te formé tuñu parce que amatul petite catégorie. mais loolu jafe-jafe yooyu dafa am na loo xamante ni bëgg mais na jafe lu ñuy wax mais comme Sibac nga nekk tudd la jafe-jafe Sibac bi d'abord ba pare. lu ñuy wax chaque jour problème am su amee tamit dañ koy xool tamit naka lañ koy arrangé entre ñun. Mm-hmm. loo wax yëpp tamit aussi. mais problème bi problème mu xaalis la. dañuy ne dëgg parce que buy wax sport day wax waxu xaalis. mais fii dañuy demee ban volonté yi ñoo fi nekk ku nekk gëri ne sa poche. nan nañu passé ligue euh, amateur. nan nañu nekk ligue professionnelle. ñu xam ne équipe bi temps la am comme budget. que fu muy bi xaalis bi di jugee ñu xool naka lañ koy secteur bu nekk nuñ koy fi lu ñuy dugal fi ñuy dugal xaalis mais tey soo xam ne ni que instant c'est des deux volontés yu ñaari nit yoo xam ne ñoo am seen xaalis. di si génn à la longue dañuy toog. donc du ngeen mën a rivaliser du ñu mën a rivaliser ak keneen. tey sentiroo leen aide euh, état wala aide en tout cas fédération bi ci seen club boobu. attends man damay wax ni man sama en tant que sipat bi ma yore. man entraîneur jour la bu en ah, même temps lépp. jour tu que nu muy xawee jour bi day am problème su ko euh, su ko waxee président bi amul lépp si man lay ñëw. tu vois après naka nga jour bi nekkul léegi naka nga bëgg instant yow lu nga bëgg mu andil la ko ah, tamit dañuy waxante dëgg ah aussi. tey euh, toujours si équipe nationale lay des est-ce que si ba fekk tàggat benn joueur ba mu daal di dem bokk ci équipe nationale benn jour laa lay wax ne que instant bi Jean-Jacques Boissy foofu la jógee. Hmm. mais euh, aussi si juste la ñuy nekk parce que gis nañ ci wàllum football ñu bëri ñu ngi wax kii di euh, Aliou Cissé daal di wër nga xam ne mooy Lions yi nekk si championnat Sénégal mais gis nañu aussi ci Sénégal joueurs yi fekkee ñeneen ñu ngi si championnat ñu bëri si extérieur leen di jëlee ñi nga xam ne ñu évolué foofu noonu ngeen gisee loolu. waaw ah, xam nga tey dafa am. Euh, lu ñuy wax. même s'il faut aussi préciser que basket moom moo dàq indi championnat basket la ëpp lu ñu jëlee ci jour. c'est ça li nga xamante ne moom mooy football. parce que de yoo ne ñu ngi ci biir championnat Sénégal. ok benn anecdote laa lay joxaat encore 97 ñun ba ñuy gagné coupe bi y avait 7 yoo xam ne ko ay locaux la ñu woon si laa bokkoon. Hmm. te maa doon capitaine bi. Hmm. ñeneen ñi yëpp estere lañ jógee hmm. mais taxul. bu ñu ñëwee xool nañu que instant mënoon nañu ànd. Mm-hmm. ñu demaat ak te du loolu préparé nañ ko un an fii Sénégal. Mm-hmm. parce que chaque chaque semaine amoon nañu deux fois deux deux séances d'entraînement. Mm-hmm. ñële bu ñu ñëwee fekk ne ñoom ñu ñoo leen ëppoon rythme mais dañu ñëw rek complété. mais est-ce que aussi ça ne rejoint pas lu lu lu Will wax mooy que ni tey da ngeen gis sept yoo xamante ni ñu ngi football ci championnat. Euh, bu Sénégal léegi bu ñu bay gis deux walla trois sax donc ça pose le niveau euh, ça pose le problème du ah, niveau bi xamante ni championnat bi am na ko. niveau bi ma lay wax. dama lay wax dëgg. fii soo xoolee si Sénégal yëpp entre trois jours ñooy def ñooy ñooy alterner. Mhm. Euh, Adams la woon. Mhm. ak Boissy. Mhm. ak euh, comment dirais je euh, Diallo. Mm-hmm. Bamba Diallo Bamba Diallo. Mm-hmm. pourquoi ñooñu ñëpp parce que xal ñooñu dañ teg seen bopp ba pare professionnel ba pare ñoom ñu ngi liggéey en tant que comme ñuy extérieur waa professionnel extérieur yi nekk. du du ñu ñuy entraîné ñoom noonu la ñuy entraîné. Mm-hmm. donc chaque jour dañuy dañuy nekk dañu nekk au top. bon dama parce que da ngeen euh, jàpp ni football lañ gën a jox gëdd fii ci Sénégal ou bien. mais mais ñu dañuy waxante dëgg sport waa football la nag xaw ma waxante dëgg parce que dama lay waxaat encore benn anecdote boo xam ne que dama ne fii Sénégal bi man bu may wax coupe bi Sénégal euh, day jël coupe bi. Mm-hmm. man bi ma koy wax. Mm-hmm. yaa a même pas deux ans. Mm-hmm. te xamoon naa da koy jël. mais basket cas boobu nekkul. mais yéen fi ngeen basket tey li ngeen satisfaction bi ngeen indil peuple sénégalais bi football indiwoo ko. donc yéen tey. je pense que ni boo amee lenn lu yàqu ci ci basket bi quand même il faut le dire mooy ñi nga xamante ne ñoo ne ci biir secteur bi ñoom la concerné maanaam ñoo téyewul basket bi nu mu war a nu mu ko war a téye tey équipe yi mel ne Angola fan leen seen formateurs yi fan leen di ñëw seen gaaf yi leen di ñëw tey amoon nañu ay terrain foo tourné ci biir cité yi da gis terrain Sibak la moo tax Sibak nekk benn club bu mag c'est parce que dafa nekkoon ci zone boo xamante ni tey bu fekkee que niveau am na fu mu wàcc c'est parce que lu njëkk lu doon def li dañoo daal di daal di daal di dañ ko daal di bàyyi xam nga ñu ñu jàpp ne daal ñu maintenant on est arrivé xam nga au sommet donc daal amul kenn koo xamante ni mën nañoo dab daanaka loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo indi suuxa gi nga xamante ni basketball bu Sénégal daal na ko indi. xam nga tey da wax dëgg rek foo fa ngeen demaat si terrain bi ngeen xoolaat bu baax championnat petite catégorie boof même pas un mois lay duré ñun ñu nekk. catégorie lu mu bon bon bon dinañ jouer plus de vingt matchs mais petite catégorie léegi pratiquement amul léegi naka nga bëgg a relève boobu ñëw pour fekk ci élite bi. c' est compliqué c' est compliqué. Tijane bon man dama doon laaj ban yan ambition la Sibac am. Euh, pour saison bi jàpp si rek très rapidement waxtu bi. <laughs> yan ambition ngeen am pour Sibac. pour ah. bon. jéem a am benn coupe daal si saison bi loolu la moo doon mooy objectif bi c'est ambitieux Tijane waxtu bi dab nañu ah xam naa ni question yi nga dese yi dañ koy daal di beneen <laughs> waaw comme ni nga ko waxee bon euh, indi fi yoo xamante problème bu bu bu yoo xamante ni mu ngi am ci basket bi. Mhm. et ça prouve à suffisance que le mal est profond donc ñu ñaanaat peut-être ëllëg rek bés bu amaatee temps. Mhm. ñu gën a gën a yaatal. jox dig daje téléspectateurs yi lundi prochain incha allah rabi. incha allah euh, coach Raymond bàyyi la nga tàggoo. waaw di kontaan si invitation bi franchement bëggoon nañu tuuti yu gën a wax mais bon temps bi mhm. moo ñu xëcc mais tamit encore kontaan nañu si trop si teewul. merci beaucoup Wile. Fatou Sidibé ñu ngi remercier kii di coach Raymond Edouard Carvalho nekk entraîneur fële ci Sibac en tout cas ñu ngi lay remercier ci leer li nga xam ni indi nga ñu ko on espère que ci wàllum basket moom nañ ci gën a avancer en tout cas parce que Jean ñoom Tidiane xam naa ne ñor na leen trop Fatou di remercier encore Tidiane si la présence de Sira Béatrice Ndione et à toi aussi Fatou Sidibé képp ki nga xam ne yaa ngi doon seetaan suñu label TV ba suba incha allah merci Willy Béya. maa ngi lay lan ngay waar waar. non macha allah baat bee neex. la ma teew fii. plaisir la plaisir la ma teew fi dama ko bëggoon laaj athlète au niveau yi seen prise en charge la moo tax ak chaque fois muy sooxe mais ba mu jénnee jafe-jafe ci club yi laa noppiwaat ah. bàyyi question boobu mu seet <laughs> bu ñëwaatee ñu <laughs> ak yéen aussi euh, j'espère que ni li fi jot a wax lépp euh, indi na njëriñ ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan mm-hmm. di leen jox dig daje mercredi ba mercredi. wala suba ah mënoon ngaa ñëw suba waa ñëw suba voilà en tout cas merci beaucoup euh, Sera euh, Béatrice euh, Ndione ça ça fait de de t'avoir avec nous merci beaucoup Tidiane suñu suñu sportif maison bi sa sañse baax na dama amuloon temps wu sa sañse baax na. donc merci beaucoup si yàlla mënul ñàkk donc merci à toi moo tax bon d'accord nangu naa donc merci. Merci à toi Wilessa Diallo et merci coach Raymond mi nekkoon suñu euh, invité tey di la remercier ci disponibilité bi ak explication yi di remercier aussi téléspectateurs yi àndoon ak ñun euh, depuis 8 heures ci suñu émission suñu matinale donc dig daje euh, demain inchallah ci beneen matinal d'ici là portez-vous très bien e très bon début de semaine à tout le monde donc restez connectés à suñu Label TV ñeneen ni ñu ngi ñëw pour laisser journée bi